auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa ta taala wa baraka ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baawul muridin di ziyaare bu baax mbooleem ñi nga xamante bi ñi ngi fi rek Argentine di ñu teelu suñu mbokk talib yëpp ak mbokk julli ak di san mbokk yu baax yi nga xam ne ñu lañ bokkoon nekk ci kaso bi di san di yëngandoo rawatina onse barab bi nga xam ne fi lañ féete rawatina it waa Flores yëpp di comme ni koy faral defee rek di san ci waxtu wu jot mooy seen mbokk mbopp seen ndongo seen taalibe seen xarit lay Bamba Sarr ci émission diine ak jamono mu mel ne nag incha allahu taala xam naa dinañ ñëw ak yéen ci bunt bi nga xamante ne bi ni tàmbali woon nañ ko rek mu amoon solo lool ndeysaan ñu gis ne mbokk taalibe yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy jëriñoo ndax jàpp nañ ni waxtaan wa amoon na xam naa kon buntu boobu rek la ñuy àggalee ndeysaan ndax kenn ku ci nekk xam ne saan tukki dafa dafa metti rawatina nekk ci barab boo xam ni ndeysaan ne ko fa ak sa kilifa wala bu fekkee nekk fa ak sa na dëkk bi na muy doxee ak suñuy aada ak suñu ak suñu gisaan dafa xaw a am ak wuute mel ne yàq naa ku ci góorgóorlu rek jëm a sàmmuloo rek ëllëg ak yéewal ak jaxasoo mën naa am seen diggante xam naa kon ci buntu boobu la ñëwaat incha allahu taala mu mel ni jamono bi weesu ñu ngi woon ci suñu alxames bi passé ñu ngi woon ci numéro nit ñi nga xam ne sa dafa dogal ñu am fii ay soxna sa borom am ay soxna yoo xamante ne bi ki dañoo nekk ak ñoom ñenn ñi yàlla dogal ñu xëy xëy seeni soxna xamatuñ ci lu nekk maanaam dañuy wax abandonné nga xam ne ñoo jékki-jékki rek dem bàyyi soxna yi am ci ñoo xamante ne bi ki nii sa ñu am fii ay tuut tànk maanaam ñu am fii ñoom si seen wàllu bopp ay tuut yoo xamante ne bi ni ñoom ñoo leen jur yàlla dogal mu mel ni ndeysaan yar bi nga xamante ne bi ni moom lañ leen war a yar ñoo ngi tubb bu baax dafa mel ni sama tig sa dafa yor ba sama a sant ca moom laay xoolaat nii insha allahu taala euh, sama borom dogal ñooñu am responsabilité bu mag a mag a mag ndax kenn ku ci nekk xam ne alxuraan daf ñuy wax nii kenn ku nekk ci yéen sàmm nga ci sa njaboot di wax gars yi nañ ci gën a góorgóorlu te sàmm ko li ma waxoon rek bu fekkee yàlla dafa def nga yor fi jigéen fii ci dëkk bi yor jigéen fële ci Sénégal na nga leen boole ndax ki li la war ci kii rek moo war ci nga bàyyi fële te ñu bi ndax lépp loo xam ne rek dëgg rek mën na si koo nëbbatu ndax lépp loo xam ne ay caaxaan rek ak i neen bis na ñaaw ala kulli lépp feeñ suba bu fekkee ni ko dëgg yàlla nga rek moo ci juddoo ndax suñu jubaay dañuy dawlatul baatili saaxa wa dawlatul a bàyyi xel bi ko topp mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii yor ay soxna bàyyi leen fu ñu dëkk jamono neexul ndeysaan rawatina fii Argentine ndax yaakaar naa ni fii dollar bi tollu tey kenn ku ci nekk xam na ko moom muy doon loo xam ne yàlla jéggal dollar bi daa mel ne ko daa mel ne ah, daal ak na muy naawee bu fekkee léegi maanaam su ma dafa dogal dëkk bi fii mu toll ak ni mu méttee ak fii dollar bi toll nga xam ne la nga dañoo ne xaaj ba sama doo ko am tàngaayoo wala boog métti woowu ak stress bi nga ci aju bu mu tax ba soxla si wóor a téléphone mu ko ndeysaan nga di ko jànni mbaa nga di ko toroxal jaru ko ndax léeg-léeg da yoo xamante ne bi nii moo àdduna ñu ànd la xad a tege ci fi ahsani taqwim ndax li nga xamante ne bi nii sa borom moo la koy jox mi ngi suñu loxo te ay ndaw lañ dara romb ko ci ñun nag te dara yooyu sogul dara jot a bu ñu apprendre soxlawu ko dafa am lu am solo tamit bàyyi xel mooy sunu soxna yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal di ñu muñal sëy Sénégal aada la ci bu fekkee ne ci misaal na nga am benn rakk bu jigéen wala nga mag bu góor wala na suñu yaay yi nga xam ne dañoo naqari dëkkal naqari deret buñ toggee ñu sa saful xorom léeg-léeg ñi dafa weex yooyu yëpp ñu koy jànkonteel ñoom di ko muñ buñ ci bëggee boole nag ak yeneen nag coono yooyu ñu toggoo ci seen biir ak seen kër wax dëgg yàlla day bëgg a métti nag maa mu ëpp gars yi nañu wàññi yi te xam ne ëllëg wallaahu a'lamu te liy ñëw nag mën naa daq inna ma'al usri yusran jafe-jafe goo gis rek jàpp ndal moo ciy topp te yàlla waxul kenn dara tey suñu tubaab wax nañu waaw wasixoo bi nifaaxi tawakkal ala arsaaxi da ngeen wakkiiru ci yàlla bi nga xamante ne bi moo yor wërsëg waaye dafa am loo dama ko bëgg ñu dollante ko ñu am ñu fàttaliku ko bi ci njëkk mooy bu fekkente ne bi da ngaa nekk fii sa waajur bu jigéen nekk Sénégal nekk fa ak sa soxna. sa soxna nekk fa di gis ay moroomi jigéenam di ànd ak seeni borom kër moom borom këram sore ko loolu daanaka téléphone lay sëyal mu bekk ci di muñ loolu beneen bi ki topp li koy jox yow doyut wala boog matut mu koy meñ ngir yàlla coono yi nga xam ne mu ngi koy toggoo te dafa am ñoo xam ne ndeysaan dama yàlla jégal ay xeetu kalaasu ndeysaan xeeti góor sekk yi nga xam ne dañuy nekk Sénégal am fa say rakk yoo xam ne dañuy sant jàmm ah. seen néeg bi noonu lañ koy bay bu ñu sumee koo sànni léegi jàpp ne ñoom change d'amour si moo war a la néeg bi moo ko war a bare moo leen seen yére bokkul ci sëy bi ñu xam te dëgg bokkul ci sëy bi moo tax loolu dafa am solo ci di ko bàyyi xel dafa am solo ci di bay xel soxla yi xam ne ñoo nekk Sénégal di sëy ak suñuy mbokk di sëy ak ñun bale ko ñun ñu leen di yuuxu di leen saaga di leen gritaar te soxlawu ko jigéen boo ko bayee la nga koy jox doyut dëkkaloo ko dëkkoo woo ko sori nga ko léegi-léegi nga ne toog ñaar fan du la dégg nag tax ndax mooy tax xel ak man yow waaye fekkee li nga koy jox doyut loo xam ke mi ngi ko te xamoo ko dara parce que lépp lañ mën a wax ku mel ni sama xam moom nga ko na ko ah bu fekkee ne bi ne ndongoy dafa wax dara rek mu jekki-jekki ne ko bu ma yaa ma waxal nangam wala la wax diw yooyu yëpp ndeysaan muy ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteeg seen biir nekk goro yi bu buñ ci bëlee bëgg bëgg seen borom kër day gën a diis te day gën a tat day gën a métti ci ñoom ma ñëwaat nag fii ci biir dëkk bi Argentine ndeysaan gars yi di wax nii dafa am loo xamante ne bi ni day farata dafa am lu ñuy wax am lu ñuy wax fardul ayni bu fekkee sama borom dafa dogal mu génn àdduna dafa am loo xam ne jullit ñoo ko paresel muy lan sang ko sang ko denc ko ñaanal ko loolu jullit ñi ñoo ko amel bu ko ñenn ñi defee bakkaar yi wàcc ñu ci des ñëpp bu ko ñëpp bàyyee bakkaar yi matale ñëpp di ñaanal ñi nga xamante ne bi gën a jóge nañ fi ñëpp yal na leen sa borom yërëm te xale leen àjjana ci barke Sewul Xadim waaye li ma ciy dolli mooy nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk di laaj di volonté wu di jël seen temps di dem ci kër nit ñi di leen laaj ngir ñu jox leen ñu mën a xontal xaalis ba mën a jël ki nga xam ne faatu na fii ci àll bi ñu mën ko ajal danga ko bi yóbbu ko Sénégal ñooñu na leen leen sant na leen gërëm ndax wax dëgg yàlla loo xam ne ñëpp la waroon bu la def rek sant ko te yàlla rek tax bi ko toppit mooy wolof day faral di wax ni wat gaal ak yéego ko xalaa kul ndax mbooloo mu booloo may faral dafa am ñaari xeeti mbooloo mbooloo bokkut ak mbooloo mbooloo jamaa mooy firi mbooloo mais mbooloo mu booloo nag mooy ñooy nasoonoo di nocceenoo ñooy bokk ndey ñooy bokk bàyyi ñooy bokk lu ñuy def ñoo koy nax lan wala kii moom ñu ngi waxtaan di diisoo nga xam ne réeroo mën a am seen biir nañ ci góorgóorlu tawatale ko yàq. nañ waxtaan ko yàq yàq mooy ba fekkee yaa mën a taxaw comme man li may def mooy Mariama Sarr tokki sama émission mën na ko loo xam ne peut-être maîtrise ma ko mën naa jur leneen ba fekkee damaa toog ak nit wax ko loo xam ne maîtrise ko mu dem nettali keneen kooku nettali ko keneen ba mu accès ci yow mi ko waxal te fekk damu nañ ko waxee mën naa jur leneen te mboobu boo ko solee gëtu la waaye rekk boo ko solal sa morom nañu nekk benn ndax suñu baa daf ñoo digal nañu àdduna ñett fi nekk góor jigéen mag ak ndaw koo xam ne yaa ko mag ak koo xam ne moo la mag ak koo xam ne ay morom ngeen ki nga xamante ne bi yow yaa ko mag na ko yërëm moom na la respecté ki nga sa morom la na nga ko wekk def ko di sa wa tawxirul wa jaxlu mislek kanafsika sewa li watqi xaalixda ala asistawa loolu bu ñu sukkandikoo rek xala ku li alir réeroo moom léeg-léeg mu am ci diggante doomu aadama waaye lu ci bare bare dana wàññi bu baax mbokk yi nga xamante ne bi ki nii ñoom la ñuy woowee ay njiit ñu ne ci barab yi desaan di góorgóor waaye leen soññaat leen ko ñaaxee dama koy faral di wax mooy su fekkente ne que ni mbooloo dañ laa tànn teg la ci barab nit ki doo ko gis la barab di ko fakkasal waaye bu fekkee mbooloo dañ laa la ci barab ngeen fas mbir fas ngeen koo def bu ngeen ci waxtaanee ba am ci dëppoo yéen ñu ko waxtaanee da ngeen nag dellu ci mbooloo mi leen jiital da leen fas nañu yéen def nangam kat fas nañu yéen def nangam insha allah yaakaar naa suba bu fekkee loolu xam ne ñëpp ci ñëpp ci ànd sénégalais moom xëy na mën naa bëgg kilifteef wala mën naa bëgg ndeysaan léeg-léeg ku ko yëgal wala ku ko tàggu waaye boo ko waxee rek lu mu jàppoon sax bu fekkee da bëgg la war am sax mën naa bàyyi kon loolu ñu ciy bàyyi xel ngir yàlla ak jëm yoon wax ni benn bopp dañuy su ko mënee ñaar waaye ah benn bopp mën nañu ko xar ñaar waaye wëree su ko xar ñaar subaa du jur njariñ kon ci jéem a sàmmante ak suñu diine jéem a sàmmante ak ak doomu aadama yi ndax yàq sa borom yàq yàq sa mbokk loolu amul benn njariñ ñun ñëpp ay Sénégalais lañ te dañu ñëw ci barab boo xamante ne bi ki ne ndeysaan dañ fay xaw a néew dee la lool rawatina ni dëkk bi doxee stress bi bari tabarakallahu ak dëkk bi suñ bi ñi nga xam ne suñu fi dëkk sax ni san àndu ñu seen sago rawatina ñun ñi nga xam ne nag ay étranger nag de sàkku lu ba noppi yow yor comportement boo xam ne maa détail yi gars yi léegi tubaarkal naanaka moom na rek waaye nag mat nay segg nag ndax ñun suñu aada la su suñu cosaan sax ngir liggéey teraanga tërale ko nit waaye yàlla moom maanaam soo jëlee bay def du la laaj moom fi ngay def bala laaj fi nga ko def day laaj fan nga ko jëlee yàlla ci boppam maanaam li ngay jël fi nga koy def dana ko laaj waaye balaa laaj fi ngay def day laaj yow fi nga jëlee kon yaakaar naa wutin wi nañ ko rafetal amin wi nañ ko rafetal jëf ji subaa mën a am na bis boo xamante ne bi ki nii lay ala kulli àll kenn ku nekk ci ñun wallaahi li karim da ko wéete mooy ànd fa fi suur bis da ñëw kenn ko ci nekk ci ñun ñu sangu ba ñu set. fa tabarakallahu tabal ñu ci barab boo xamante ne bi ki nii wa am na laysa lil insaani illaa maa saxaa lañ defoon dong lañ fay fekk loolu nag ku koy bàyyi xel yaakaar naa am na jëf yoo xam ne sa ngor da la ko may xam ni àdduna bëriwul solo te li nga xam ne ëllëg moo ñuy jariñ fa ñu jëm fii dong lañ ko mën a liggéeyee barkeel Quran ko mën a liggéeyee kon nañu wàññi coow yi nañu wàññi coow yi te respectante ñaari barab mënta ñàkk comme ni ñuy waxee mbooloo jëm fii mbooloo jëm fii nit ñi nañoo ba ñoo ba ko xalaat mais bu ñu nekk ay noon man ngaa xalaat lii ma xalaat lii ñu bañ a bokk xalaat mais bu ñu nekk ay noon kon loolu nañ koy bàyyi xel te wattandiku lu ñuy jaxase ak lu ñuy feewele su fekkente ne bi kii dafa ñëw di wax ci yow loo xamante ne bi kii nii di wax ci nit loo xam ne dëpp la war a am nee ko sa waay diw loolu xamewuma waaye tokki sa barab bu lay Bamba Sarr wala Gora Seck envoyé message yónnee ci groupe bi nga tëdd fa nga tëdd naan xool ko rek xamul dara nang ma ki nanga pour lan waskur ma asama fi isa sukaro nit ki bu ñu ko tuddee waxal ci moom lu rafet waaye tëdd sa néeg waa taaj sax nga naa jaaxal rek bu góor a sax ne ba tax nga di xool ko rek ni mu soofe kii yow sama la bopp yaa yor xol boo xamante ne kii mënoo di seere kenn loolu baaxut ñi nañ jéem a defar suñu bopp ñun nañu nañ jéem a defaru defar suñu bopp te bëggante ci suñu biir te yàlla rek a tax ndax loolu moo ñu jëriñ adduna moo ñu jëriñ àllaxira te ñi fi nekk te nekk fekk seeni kilifa nan leen fonk te respecté nit du am ñaari kilifa boo fi nekkee ak seen yaay jox ko cërub nijaay ba nga ko joxoon Sénégal te woomu ko te fonk ko te warmal ko bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi boo fi nekk ak sa waajur wu góor na nga ko wegg te ko bu la nga def bu la teree nga bàyyi bu fekkee da nga fay nekk ak sa ne ko fa kenn ci ñi ma limal nag ñi nga xam ne yéen yéen dëkk te ñenn ñi féetal ak mag na leen jox cër bi nga xamante ne bi nii mooy seeni kilifa ñu baal ma ndeysaan mu mel ni xam naa ni suñu téléphone mooy sonné waxtu noor gi maa ngi koy tubb bu baax a baax a baax suñu góor sama technicien bu ñaawul bi ndeysaan noo ngi lay jéglu loolu mu mel ni xam naa incha allahu taala xam naa ndeysaan mbokk yi loolu parenthèse la boo xam ni dañu won ni dañ ciy dugg wax dëgg yàlla ngir gars yi bañ a bañ a bañ a lekk-lekk di xoos ci yenn détails yi nga xam te ni duñu ñu jural benn njëriñ waaw ndax wallaahi karim léeg-léeg nit sonn ci mbir moo xam ne fa mu ko doon defee ak fa mu ko doon xam ne bu la ko kon nag boo ko defee ba am ca ndam wala boo ko defee ba njort ne lu baax na boo koy critiquer ndeysaan na ko critiquer ci wormaal sa kàddu ci yar ak teggin ba su ko déggee doonte critique la mu mën a amal ko njariñ nda critique nag ñun Sénégalais bëgguñu critique waaye critique lu baax la nañuy déglu critique critique wallaahi karim lu am solo ki dund doomu adama la dana tax bu fekkee ma dañ maa critiqué ñi ma jàkkaaroo ni ma sa moom bi dafa weng ma mën ko jubanti bu fekkee tamit dañ ma wax li may wax dafa nga nekk yow rek nga gën ko organiser waaw kon ndax ku ñuy critique kooku mooy suñu mbokk te parce que moo ñuy dimbali li tax tubaab bi raw ñu ñoom boo dañ lay déglu yow ci li di critique lan la am dañuy bëgg a xam yow li nga wax lan la bu ñu ko xamee nag xool ko ci seen bopp léeg-léeg ndeysaan nit di déglu dëgg waaye dëgg gi fi mu ko laal moom moo tax du bàyyi xel dëgg gi dana yàkkamtee tontu mbaa mu yàkkamtee addu ci ki wax dëgg gi ba tax dootul bàyyi xel sax li nga xamante ne bi ki ne ndeysaan loolu mooy li xew mbokk yi maa ngi tuddee dafa mel ni solo bi day faral di yëngatu rek ndeysaan di def loo xam ne bokk ci ndeysaan barakallahu fikum maa ngi koy tub bu baax a baax ndeysaan xam naa ne tey moom dafa mel ne sama technicien bi xam naa dina mel ndax li bokk ci liggéey bi dañ ko fiy tere mu mel ni incha allahu taala critique dafa dafa dafa dafa am solo comme foofu ma tolloon ci di ko di ko di ko bàyyi xel ndax danañu dimbali dana tax ba li nga xam ne ñu ngi koy liggéey mu mën koo taral bu baax baax mbokk yi xam naa incha allahu taala danaa ñëw ci fi nga xamante ne bi ki mooy sama téere bi nga xam ne moom la ñu woowee nax ju xadda ilaa ji fii asdi sarxi sayxina addalaa ji mu mel ne lu ama am solo la ndeysaan ndax mbokk yi ñu ngi koy bàyyi xel gis naa nag sëñ Sayid fan yi nee na ma téere bi dafa am solo lool waaye nee li may joxe ci bind léeg day xaw bari ba ñoom duñ ko mën a jàpp dañ ciy suñu yaakaar dañ ciy toppati ko nafaat ak yu mel noonu xam naa insha allah su ko defee di indi bind boo xam ne li suñu ci waaj a xanaan wa kullama xalla bi liktifaa yi xayru min la tuuti te am solo moo gën lu bari te amul njariñ ndeysaan yàlla ñu sàmbarum defal ak dégg ak ku mu mel ni insha allah taala xam naa kon dinañ mën a ñëw ci suñ tere boobu xam li ma ci li ma ci bëgg a dolli rek mooy dama koy yóbbante sax sëñ Gora Seck mi nga xamante bi moom mi ngi ci panel boobu Euh, ndax ginnaaw dañoo nekk ci barab boo xamante ne bi ki ni ñoom ñoo fa nekk di nasaka nocci di déglu kenn waxul ni may rappeler encore une fois ñi ma déglu ñëpp ci panel bi ñuy wax amu ci kenn kenn ku gàntal wala ku nangoo leen def dañ ni soo fekkente ne def ngeen ba tënk mbir ba waxtaan ci ba dëppoo ba fas ngeen ko def mbaa ba namm koo def na ngeen delsi ci mbooloo mi jiital ni leen ñun kat namm nañoo def nangam du doon tàggu waaye yëgal la ku ñu xam ne dëkk bi ni ñuy provincial yi bi li fi nekk dong yaakaar naa mënu ko yëgal ñëpp waaye nag boo xasee ba tabbal ci mbooloo bi ma li wax fi léegi ma li te yaakaar naa ñun ñëpp ñoo bokk luñu lu baax kenn du ko bañ ci ñun lu baax kenn du ko bañ polémique polémique baaxul te am na loo xam ne sax jërut débat am na loo xam ni jërut débat di jaajëfal sëñ Paate bu baax ndeysaan moom mi nga xam ni amuñu ak jaxasoo mii nu ma ko lool sax wax dëgg yàlla waaye def na jëf ju rafet ndax fu mu ngi jël temps kenn ku nekk xam ne wàllu xaalis dafa xaw a doy waar toog sa kër yaakaar naa di calcul di jël sa feuille di bind di jël sa temps te loolu nga temps nga def ci loolu am nga amoon foo ko mën a def bis dugal ci groupe bi indi ay leeral wax dëgg mu nekk liggéey bu mucc ay boo xamante ne nii ñi ngi ko ñaan lim ci wut yàlla ko ci sama borom defal te ne ko décourage ndax àdduna ak li ñoo ànd xanaa ku li àll ki ci kanam moo tax ñu tudd ki ci ginnaaw te mbir nag boo xasee ba am ñu bari ngànk ko ñu ko tudd ay nit ñooñu nañ ko sant yàlla ndax kilifteef sa borom moo koy tànn comme ñi nga xam ne yàlla tànn na leen def leen ñoom ñuy ay kilifa jiite yenn mbir yi nañ ko sant yàlla mi nga xam ne moo leen fa teg loolu dafa nekk loo xamante ne bi kii dafa am te nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la kon xam naa insha tax la dañuy ñëw ak yéen ci seen bind boobu muy naxaju xadda ilaaji fii adda sarx seexina adal haaji maa ngi fekk sama technicien bi nga xam ne moom lekk rek la bëgg ndeysaan moom Alaaji Góor Sekk xam naa mi ngi fii laaj ay xéwal yu nga xam ne ndeysaan ba ki xam naa kon incha allah ñëw ak yéen ci seen bind boobu muy nax ju xadal nax ji mu ne wala tusaaxib bul ànd ak isa arata ndéem namm nga wala boog isa arata ndéem bëgg nga suux baxoo ak ànd sa tafaxin di boroomuk dese aw asidin wala boroomuk iñaan aw raqaba wala boroomuk xemeem wala dajaalees tabul toogaaleeg xayraman ku dul koo xam ni tusaat def na dalil la bii ci moom diinan diine waa xalam ak xel abadan faw tanal kon danga am muraad ak nameel mu ne fàq baroo xibaar nañu bi annamal mar'u ci naka kem sa kem boo ko déggee mooy nit ki rek xalaa diini xalilihi nekk na ci baaxub xaritam xadisan mbir mu muy ab xadis nuqila boobu tuxaleef na ko wala nga ni boo xam ne jëri nañ ko yaa ngi dana jublu àndaxoo naka moom yuusika dana la dénk bi an laa ba ci ngay bañ a àndanteeg as-sufaha way dese wa bi an laa tujaarisa ak ci ngay bañ a toogaaleeg illaa man ndare koo xam ni tasdaadu da nga dolli ko bii ci moom xaqalan am xel wa diinan ak diine fay ni fi saalika naka loolee wala boog naka bokk na ci loolu tunaalu ngay amee maa la nga xam ni tusiidu da ko bëgg fi daari ni ci ñaari kër yi fa inal mara naka kem sax da ngay naka kem sa kem bu ñu waxee rek mooy doomu aadama nit ki rek mu ne finalement naka nit ki rek ala diini xalilihi nekk na ci dinay xaritam xaala wax na sayyiduna sunu sang xaliyun karama xaliyun xaliyu karama yàlla na teral ko allahu yàlla subhanahu wa taala wajhahu jëmmam ja lu mu wax fala tusaaxib bul ànd ak aqa jaxlin boroomu réer wala nga ni aqa jaxlin mbokk mu réer wala nga ni boroomu réer wa iyaaka maa ngi lay moytuloo wa iyaahu ak moom fa kam min baraana aji réer arda xalak na wala nga ni alku na wala nga ni suufeel na xaliman aji xellu xeena waaqahu waxtu mu ko jàppee muy mbokk ma yu xaasu def na xiyaas almar u kemsa bil mar i ci kemsi isaamal mar u ndaan dem kemsa maasaahu àndante na ak moom wala nga ni maasaahu ànd na moom di dox ka aswi naqli niki tolloo dàll bi naxli ci dàll wa isaamaa naxlu ndaam neel dàll wa xaasaahu tolloon nag moom wala sha in ñal na dara xaasaahu tolloog naag moom wala li sha in na dara ala sha in ci dara maqaa yi sun ay xiyaas wala nga ne maqaa yi sun ay xiyaasukaay wa asbaahu ak i xal bi ñal na xol bi xalal xal bi ci xol bi dalilun ab tegtal la xiina yalqaahu waxtu wu mu taseeg moom wali ba'dihim ñeel na lenn ci ñoom isha kunta nekk na fii xawmin ci aw nit fasaaxib na ngay ànd ak xiyaarahum seeni tànneef wala tasxabi bul ànd ak arda aji alku wala nga ne aji suufe fa tarda ba dana suufe wala nga ne ba dana xalku maxaradi ànd ak aji alku laa tas al bul laaj xanil mar i waris sax wasal laajal xan xarinihi waris aji lënkaloom ja ndax fa kulu xarini ni jëpp aji lënkaloo yàqta di dana roy bil muxaarini ca ka muy lënkaloon xanaa ma ñëw ak yéen indi leen sharab bi pour ñu mën koo comprendre bu baax comme ni ma firee baat yi Sëñ Tuubaa dafa wax ni euh, bul toog ak ku desee maanaam bul toog ak mukk fekk dafa dese yal nañu yàlla mos ci toog ku dese ndax nit su fekkente ne da ngeen di rek léeg-léeg faw mu am lu muy jële ci yow wala yow ngi am loo jële ci moom moo tax mu ni kon booy toog bul toog ak ku dese mu ni bu toog ak ku dul ku lay dolli xel bu toog mukk ku dul ndax temps dafa cher saa boo xasee ba toog ci barab di waxtaan rek. na nga fa dolli ko dara loo xam ne ëllëg mën na laa jariñ moo tax mu ne bu toog mukk ku dul ku lay dolli am xel ak diine ndax ci loolu ngay ame li nga bëgg lépp tayit nit nit ci boppam ci ka muy àndal rek lay roy nee na Seydina Aliyun karamallahu wajhahu ndeysaan nee na bul ànd ak ku réer Seydina Aliyu karamallahu wajhahu nee na Seydina Aliyu ci boppam moo wax ne bul ànd ak mukk bul ànd ak mukk ku réer mukk ndax da nga gis ku am xel lool waaye di ànd ak ku réer ba mujj mu yóbbaale ko ci ci réer ga mu réer day gis nit koo xam ne su moom la koy dénk tey lisaan xel mu kawe mooy nit koo xam ne rek day nekk ci barab nangoo liggéey am jom lool toppatoo njabootam nekk ci jaamu yàlla am bis ñëw mu am àndandoo yu bees yoo xam ne bokkuñu luñ bëgg bokkuñu luñ gëm bokkuñu fuñ jëm ndax bu fekkente ne bi naan sàngara te man duma naan sàngara ñu bokk benn barab bu ñuy fréquenté dafa waxtaane bu yàggee moom bu fekkee sama bopp bii moom dara néew ci lee ma naan sàngara te daaw ma naan sàngara loolu mooy fekkoon lu xal yaxtari bil muxaaribi waaw bu fekkee da ànd góor sekk léeg góor a guux te yow guuxoo moom bu soobee yàlla moom bu yàggee da guux kon nan matandeku di ànd ak ñoo xam ni ay borom ak dese dafa am solo mbokk yi moo tax ni bu ànd koo xam ni ak borom ak dese la mbokki loolu dafa am solo téere bu am solo la téere boo xam ne saan ko topp rek dana la amal njëriñ ndax Seyxul Xadim suñu yaakaar ju mag jooju moo ko bind muy téere boo xam ne ay teggin rek lay jàngale akub yar maa ngi tolloon ci wax la bul ànd ak kuréer mukk ndax da nga gis ku am xel lool waaye di ànd ak kuréer ba mujj mu yóbbaale ko nit ku nekk ka muy ànd rek lañ koy tollooleel ndeysaan nit ku nekk mu ànd rek lañ koy tollooleel ndeysaan mu kon sama jigéen bu ñaaw bi ma jàkkaaru rek bu fekkee dafa am tey ci misaal bu jigéen boo xam ne moom lay àndal fu mu toll xalaa ko laal bis dina ñëw xaritam boobee wàll ko loo xamante ne bi ki ne ci moom la nekk wala moom mi wàll ko jukkoom ndax wolof day faral di wax ne ñu bokkub teen ñooy laxasooy goj kon kenn ku ci nekk a ngay ànd rek kooku dañ lay nuróoleel kon nañuy ànd nañuy nañuy wattandiko ànd ak koo xamante ne bi ki ni nit la koo xam ne dafa am solo sama technicien bu fekkee damaa toll ci waxtu yi nga affiché ma ko insha allahu taala xanaa ñëw ak yéen insha allahu taala wéegi yéen ci maanaam ko sëñ mag bi defee rek dafa am solo ci xias xiyaas mooy tànn xiyaas mooy tànn moo tax moo xam ne la bu fekkee da ngay ànd rek na nga xool bu baax ki ngay àndal ni ñuy tollalee ay dàll nag suñ bi dafa wax ni nit ku nekk ka muy àndal lañ koy tollaleel ni ñuy tollalee ay dàll ndax kenn ku nekk xam na ne ay dàll moom wu ndeyjoor wi ak wu càmmoñ wi bokkuñu fu ñu dugg waaye ñooy tolloo buñ tolloo duñu mën a ànd moo tax ñu wax ni nit ku ci nekk muy àndal rek kooka lañ koy tollaleel ni ñuy tollee ay dàll mbir yëpp nag am nañu fu ñu leen di xiyaas maanaam muy mbir yëpp am nañ ay nattukaay mu ne xool sax xool sax boo dajeeg beneen xool dana am ab tegtal allahu akbar nee na xool sax bu dajeeg beneen xol dana am tegtal léeg-léeg ndeysaan nga romb ci mbedd mi sa bët tege ci soxna soo xam ne ngeen di jàkkaaroo yi ñaar raami xam ne seeni xol xale kulli al gisante ba am lu ngeen yëgee ñaar léeg-léeg nga gis nit ci ak sellam ci ak jaamu yàlla ma ko baaxam ngeen xoolante ci bët li ñuy wax rabixa bil ay tegtal ngeen am ak cofeel ñaare ndeysaan lu mel noonu sax noonu la ñu amee soxna ne lekk dañu teg koo xam ne ci mbedd mi ndeysaan seen xol yi daal di gisante rek ndeysaan fa tabarakallah tànn tànn dafa am solo mu mel ni nattukaay yi dafa am solo mooy li ma la wax léegi maam nattukaay dafa am lu ñuy wax ay xiyaas mooy ay nattukaay bu fekkente ne da ngaa ñëw ci barab bëgg dara na ko natt ci sa bopp tey soo ñëwee maanaam di jël mbubb mii mu weex tàll nga sol ko jotu la jërut nga ko solal keneen ndax xëy na mën naa am ginnaaw yàq ko yéen tolloo benn tamaa ñun boo ko solee du ko jot moo tax xiyaas dafa am solo mu ne waaye bul ànd ak nag ku suufee ba mu lay suufeel nit sax boo koy laaj man ngaa laaj ka àndal rek ndax moom lay roy te danañ xamante bu baax a baax a baax mooy bu fekkente ne bi ki ni tey ci misaal dangay ñëw di laaj góor a sekk bul laaj góor a laajal ka góor yi di àndal rek xamante ne bi ki naan saa boo ne ànd góor ci diw wala saa boo ne am na diw ñu ni mi ngi ci góor a xalaa kulli al ñoom ñoo yem ndax fa kullu xaridin yaqtadi bil muqaarini aji lënkaloo jooy gis comme yu lënkaloo rek ñoom ñaar ñooy yem kiif kiif moo tax wax ne xarit moom mën nañ ko atte ci moroom xaritam ndax nit ki moom bu ngeen bokkul bëgg-bëgg bokku leen lu ngeen gëm bokku leen lu ngeen di def du ngeen déggoo du ngeen bokk tempérament bi mën a ànd moo tax ab ànd mbokk yi def moo tax tànn léeg-léeg sa waajur wu jigéen wala sa waajur wu góor ne la bul amateeg diw la tax moo xam la ko moo ko xam li am soxla nag jërta gëstu kilifa moom bu fekkente ne ki ni moo la yilif waxal na la bàyyi diwam soxul ko laaj bul ko laaj lu tax ma koy bàyyi bul laaj lu tax ma koy bàyyi yow baal dañ laa yilif sa kilifa ne bàyyil bàyyil waaw kon dafa am solo ci bu fekkente ne bi ki ni nekk sa kilifa nga respecté ko tawtante ko xabaabal di tëral di wéy rek dund gi dafa gàtt te ba ay addin tamut kenn xamul fan ngay faatoo te bu fekkente ne bi ki ni bis bu jàll dootoo ko dundaat ah mbokk yi bi si gaaw na de bisi moom gaaw la mi ngi mel ni nga jël téeméer wecc ko ay dërëm dërëm dërëm tubarkala tubarkala dana bari lool nga takki barab del xool saa boo xëy jël benn wallahi jeex nga dalay bett da ko jar rek mu tege nga yaakaar ne san fa tabarakallah rasul xaay du jeex waaye day jeex li fekk saa boo xëy jël benn ak dund dund doomu adama noonu la mel dundub doomu adama noonu la mel ndeysaan xam naa mu mel ni sama sama moom danaa sàkku ñu ñu defama fikir yim ndax maa ngi bëgg a ñàkk te tubarkala man ndeysaan damay bari lool man ndeysaan damay xaw a sonal lool ndeysaan xam naa góor ñi ngi sàkku ñu wutal ñu fi kilim bu sedd guy wala lu ñuy ëpp insha allahu taala mbokk xam naa ne insha allahu taala li ñoo desee ci waxtu sëñ technicien mi ngi xamal ñu bareetul di wax ne insha allahu taala alxames bi di ñëw xam naa yaakaar naa ñu ngi ci pensar indi fi kilifa goo xam ni xam naa service la doon ci ñëpp waaye nag du leen ko promettre dañ koy xalaat bu fekkee jàppandi na wala moom jox nañu accordam insha allahu taala danañ ko dalal bu fekkee jàppandiwul it ñu daal di ñëw ak yéen ko doon defaral waaye xëy na taxawaanaa di ñëpp ndeysaan bisimilah rajo Gora. nga nga nga daaneel ñu lay rappelé ne nañu clim. Mm-hmm. ndax ko taalul. ndeyoon comme ñun moom daanaka xam nga sedd. Mm-hmm. dañ koo xaw a ragal tuuti naa ñu ñëw ci loo xam ni. Mm-hmm. jamono dana soxla ñu waxtaan ci. mooy fi àddina laay wax sax duma ne Argentine. toll fu metti surtout nag réew mi ñu nekk Argentine tey ñu jógee ci. confirmant mën naa wax sax ba léegi jóge guni ci yi mhm. dalaat suñu kaw muy dollar boo xam ne dafa daanaka mhm. xaalis bi dootul tekki dara ci suñu réew mhm. mel ni kon dana foo xam ne rek euh, dana mat ñu dàggi fa ñi nga xam ne ñooy askan wi yaakaar naa fi de kenn ku ne yaa ngay xalaat ñu ngi dëgmal seen bopp Europe la ñuy dem waaw ñàkk nag ku mel ni yow di wax ñaan yàlla porte de voix dañuy déglu ndeysaan wër na yan kàddu rek moo ciy jëm. incha allahu taala góor a c'est très important wax nga loo xam ne ndeysaan bu ko suñu xel dayoon danañ ko indi wax ci luñ ci xalaat mu mën a jëriñ ñëpp wala boog mu jëriñ ñenn ñi mooy li ma wax ci sama njëlbéen wax sañ góor a gis nga doomu aadama muy boppam suñu borom ci boppam moo yor wërsëg te ku ci nekk laataa ngay gëne ci àdduna noppi na ci yow dafa am loo xam ne nag fii la réew mi toll muy fii ñu nekk di Amérique latine bi muy Argentine di Chili di Brésil. extra extra barke alxuraan daanaka lépp igual ñoo yam sorewuñu tey jii rek ne saan maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Mouhamadou Diop soppam Serigne Saliou maa ngi ko nuyu de passage maa moom ñoo bokk xam nga lu ma xamal daanaka bi ma waxee sëñ góor ñoom bu ñu xiraaree cent mille am mille cinquante nee na ma woon mille soixante dix xaw ma mille cent nanga moo nekkoon cent mille francs léegi daanaka 1200 nangam la ñuy def ma am 100000 francs ndeysaan kon xam nga ne léegi dollar bi dafa laal Argentine laal Brésil waaye léegi naka pexe ndax tukki wala day day faral di wax ni tukki jom la waaye fële mooy ñibbisi te dafa am lu am solo loo xam ne dafa mat a xel gis nga ñi nekk ci barab bi muy Argentine di ay gone ñi ëpp ci ñun ay ndaw lañ ñenn ñi am nañ soxna waaye amuñu ay doom ñenn ñi am nañ soxna waaye gisaguñ leen ñenn ñi nekkoon seen soxna diir bu gàtt. tukki dab leen léegi da fi nekk te li ngay dab moom ba léegi yow dàq googu mbaa ba li ngay dàq ba léegi jote googu te àdduna moom yaa ngi koy dàq waaye doo ko jot te yow léegi sa ginnaaw moom muy bis pénc moom mi ngi lay dàq tax lekkul àll faaw mu ni la nuus su ba yoon mu damay wëlbatiku nag ne ma def nan bu fekkee ku mel ne lay Baba Sall nga xam ne am na métier Sénégal maanaam chauffeur nga mën ngaa dawal camion mën ngaa dawal taxi am nga fa permi ah bu fekkee am nga nag këyit fii ci dëkk bi wëlbatikul xala kuliyaan am na loo xam ne deesu ko ragal foofu lañ dëkk am fay ndey am fay bay tali loolu di wax naan li sikk li maam li bay nekkoon ba soxob sikkim mën na caa nekk ba xëy dee te gars yi nag naan la xamal ñaar de am loo xam ne ñi ngi barke alxuraan mi ngi suñ doom yi suñu soxna yi suñu yaay dund familial boobu sëñ bi lu ko dàq loolu mooy alal sëñ bi loolu loolu lu ko dàq ci àdduna amut ku naan ba xamatoon fa nga jëm nag moom da ngay dellu fa nga jóge woon ñi nga xam ne nag moom sama naar nga xam ne ñi ngi doog a ñëw ci dëkk bi yàgguñ fi amaguñu kayit mën nañoo ak wantaar muñ muñ des muñ noonu yëpp de lu naqari dong la ñuy muñ te xam ne xëy na bis dina ñëw li yàlla namu ci ñun dinañ ko waaye nag wuti moom te amu moom du gàcce ci loxo yàlla suñ góor a jaam du may boppam yàlla mooy kiy joxe yàlla mooy kiy maye. am na fi ñoo xam ne wax naa ko fii keroog suñu borom moo bind te yamalewul ni yàlla wóotalee cër yi. noonu la wutalee doomu adama yi noonu la wutalee seen wërsëg yi fi mu am na ñoo xam ne yëguñu dollar bi am na ñoo xam ne tubaarkal la te yi lañ gën mën a yónni loolu suñu borom la am na ñoo xam ne daal wax fi muy wax yónni wala xel kat mu sañoon tey corona bi du jeex ndax suñu liggéey ci la dama doxee adduna mooy doxee noonu war defal di wax ne li waaye def da ca torox kenn def na ko tedd ca ayu waay yoo gis jàmmi waay adduna mooy fonctionné noonu gis nga borom kër gi yor këram te namul kër gi jag ku bëgg a kër gi yaay mujj jagat yi yàlla ci boppam moo namul adduna jag kon mën ta jag yaakaar na loolu laa ñëwoon pour indi leen ko bu fekkee amatul loo ci dolli xam naa ko dañuy tëj foofu rek kon mbokk di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñëwaat ak yéen incha allahu jeudi ak beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf